suuf si ah président conseil moo ko joxe woon moo ma ci ëpp doole du ëpp doole sax moo ko moom moo conseil bi ñoo am sañ-sañ ci suuf ñiy wax ci suuf si nag am na ci yoo xam ne amuñu ci dara ba dara booloo jeex seen maam mosu caa béy seen maam su ko am ñoom mosuñu caa am koo ci woowante nga ne ko suuf si ngay xëccoo loo ko moome amul lenn lu mu la mën a wax ne moome naa ko ko lu dul daal dama toog toog rek ñu ñu tuddee ay intellectuel ñu jóge ci àll ba ñëw daal di dajaloo ñi nga xam ne ñoo leen ëpp xel ndax leen dugale ci mouvement bi. mais waa Escad duñu fi mos a jóge parce que le village de Mbomboy a besoin d'eux. tey jii nii Mbomboy yëpp a ngi ni toog maa ngi jàkkaarloog sama benn cousin mi ngi nekk ci kër goo xam ne dafa bëri ay ñoo xam ne muy Moussa Ngom mii nii nga xam ne moom développement Mbomboy saa yu ma tasee ak moom dañ ciy waxtaan. tey jii su ma ko gisuloon xëy na mën naa am loo xam ne dina ma naqari ci ci ci li may wax. keneen ki aussi moom mooy Assane Ndione mi ngi dëkk ngaa gaj keroog bi ñuy présenté projet bi fii moom moo jëkk a jër parole mu félicité conseil rural félicité chef de village ànd ci projet bi nga xam ne moom moo ñëw ci biir Mbombay léegi si nii nag projet bi toll na foo xam ne nag il est vrai que Ousmane wax na si loo xam ne sax naqariwu ma que projet bi mënuñu ko arrêté c'est pas projet bi Diouf mënuñu ko arrêté parce que euh, euh, Diouf Ousmane Diouf euh, ana Ousmane Diouf man dama la waxoon ne man sama suuf dama ko soxla soo mënul xeex nga bàyyi ma ma xeex su ngeen mënul xeex bàyyi leen ma ma xeex sama suuf c'est une richesse soxla naa ko dama ci sedd déglu leen ma wax la sama succès xeex bi ci Mbomboy dama ko bëgg a séddoo ak waa Mbomboy toutes les promesses que vous avez fait devant le le, le village de Mbomboy vous allez les respecter ñoom ñoo ngi nii dama leen ne li ngeen wax bu ngeen waxoon ne tey jii du ngeen ko def sax man leen par force ngeen def ko su ngeen ko bañoon mënu leen ko def donc bu fekkente mënu leen xeex ngeen delloo ma sama suuf j'ai des documents juridiques qui peuvent permettre aujourd'hui de récupérer mes terres j'ai Le problème qu'il y a maintenant, ces gens-là, je les, je appelle à la communication. Parce qu'en fait, quand il y a un problème, il ne faut pas utiliser des, des, armes. Il faut pas utiliser de violence verbale. Il faut utiliser le discours. Il faut utiliser la concertation. Il faut utiliser le consensus. mbongo yi ñun ñoo ko bokk parce que projet bi chef de village dama lay wax ne mënul neex parce que dafa am suñu mag yoo xam ne dañu fee jiitu les premiers intellectuels de, du village ñaata yoon la ñu dugal projet ci biir Mbomboy bii nii ñaata yoon lañ fi dugal projet ci biir Mbomboy kenn xamul li mu tol xaalis bi fi dugg ci biir Mbomboy en terme de millions pour des projets kenn xamul ni mu toll ces jeunes intellectuels là sinon les premiers intellectuels de la localité ils se sont enrichis donc grâce à ces projets la ce sont ces mêmes personnes ce sont ces mêmes personnes qui ont derrière ce mouvement ce mouvement là qui ne dit pas encore son nom. ñun weesu nañu foofu li nga xam ne li mooy suñu objectif mooy que ne waa Scat li nga xam ne lii moom la ñu diggee woon ak waa dëkk bi nañu fexe ñu taxaw ci. coow li coow li loolu la xam naa ne projet bi mënu fi jóge tey mënu fi jóge ëllëg parce que ñi nga xam ne ñoo soxla projet bi ñoo nekk sama gannaaw nii te ñoo ëpp ñu fi ne woon fuuf parce que ñi nga xam ne ñoo fi ne. ñi des ñoo leen ëpp fuuf parce que yéen xam ngeen di ko séeréer ni mu bindoo bu noor jotee ku ci dem mu wuti looy ami ñi ci des di xaar mais ñoom maa bi ñu ñëwoon fii cinquante pour cent ñoom genn wàll yëpp Dakar lañu jóge mais la xam ne moom la ñu passé ñëw fii mën nañu ko yóbbante seen yaay yi ñu dinde ko leneen moo gën loolu ma nekk na conseiller au niveau du comité rural maa ngi biir moom mooy loolu mais dara dara dara defuñu ko ci kon donc man man naa wax ne leneen moo leen tax a jóg waaye du développé Mbomboy man ba ilaa yow mi diini laa wax projet bii man lu mu wax moom laa wax lu mu waxul waxuma ko te sama ñaari waajur sant yonent bi ak yàlla maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen baalu àq di leen baal àq waa projet bi itam maa leen di nuyu maa ngi nuyu chef euh, sayer bi maa ngi nuyu chef di nuyu seef de village bi di nuyu it Momadou ñi à grâce de ñi ngeen ak juufeen ak seeneen defe naa ne bu ñuy wax ñooñu ñooy mbomboy te ñoo fi tasete juuf waxoon naa la keroog man du ma wax damay jëf dangay xaar ba nga ñëw fii ma sog a wax keroog xat yi defe naa ne gis ngeen ma bu nit ñi di wax yi damay naan nii jéemu ma sax wax ma ne la nag na nga ñëw mbomboy ñu jëflante fa parce que man mboomboy laa juddoo sey mboomboy kon mboomboy umpum ay nit lañu ñun nit lañu defe naa ne projet bi buñ koy wax jigéen ñi ñoo tax ak xale yi ndax bu ñu seetee tey xale yi lu ñuy dox besaange keroog mouvement bi nii la def dem besaange cours bi suñu doom yi amoon ñu génne leen jànguñu loolu est-ce dëggal ak coono ba ñu jël foofu seen seen cours personnel bu ñuy wax dispensaire baa ngi jigéen bu fi nekk tey ñaar yu jigéen yu bëri dañoo avorté ndax ni ni ñuy def ba yegg ci matron bi kon ñun jigéen ñi bu ñu gisee projet bi danañ ciy xar suñu tànk duba li fi alu seen wax rek moo fi ñun bañuñu suñu bakkan sax daanu ci kon projet bi ñu ngi lay wax ne doo ko arrêté li mooma du ñu wax moom la ñu wax boo mënula xeex bàyyi ñu xeex li ci teg forage baa ngi nii taxam amul courant ñun ñi ko gérer temps yi dañu am problème parce que gasoil bi dafa seer kon loolu nit dina ko gis nga toog di xoole ba mu dem xanaa jigéen ñi da ngeen dof ah? ouvrier li nga wax ñoom xam nañ ko ñu ngi ni quatre-vingt-dix pour cent yëpp ay ouvrier lañu waa mais boo gisee benn partenaire boo xamante ne indi na la projet boo xam ne métier yi ci aju dafa bari parce que dans le bâtiment y a beaucoup de corps xam nga am na électricien maçon bi moo ci fes nii mais li ci nekk dafa bari te yëpp a biir Bomboy mais man bàyyi xoolal man damaa gëj a dégg grand ñëwal paas man paasatuma damay xëy dox dem liggéey ma wàcc ñibbi xam loolu grand dama ko gëj a dégg man pour ma sax transport amatu ci dëkk bi grâce à Scat Afrique waaye mooy booy yàlla ngeen fi yàgg voilà euh, je m'appelle euh, Mamadou Nying je suis le porte-parole donc de la famille des Nying donc euh, une famille quand même qui est détentrice de 70% donc des terres qui ont été allouées à SCAT cadre donc de leur projet de, euh, de développement du village de Bombay. Non, il est vrai que euh, si on parle quand même davantage, vraiment on peut passer toute une nuit à en parler. Parce qu'en fait, SCAT de développement. Les projets de développement, en fait, c'est quoi Quelqu'un qui te parle de l'électrification d'un village, regardez derrière vous, les poteaux sont déjà implantés, l'alimentation des fils est faite. J'habite à 1 km d'Mbomboy, ici c'est le Mbomboy centre, j'habite à Ngagaj. Si vous allez à Ngagaj aussi, la connexion est déjà faite et nous, nous n'attendons que donc l'alimentation du courant. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage, il nous parle donc de l'éducation, un autre facteur de développement. l'éducation constitue une part très importante dans le développement. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage quand même que nous présentent ces promoteurs-là, c'est en fait la santé, des structures de santé. Il y a même euh, un responsable qui nous parle de la pose de la première pierre sous peu. Donc parler des avantages quand même de SCAT dans Bomboy, vraiment on peut passer toute une nuit à en parler sans pour autant les finir. Euh, le projet ne sera jamais en stand-by. Moi, en tant que porte-parole donc d'une famille, moi j'appelle ces, ces, ces, mes amis, mais c'est des amis, c'est des collaborateurs, c'est des parents. Je les appelle à plus de retenue. Qu'on se mette autour d'une table. Moi qui te parle, on peut se voir, se parler, se comprendre. Quand il y a problème, il faut jamais utiliser la violence, que ça soit physique ou verbale. Il faut utiliser le discours, il faut utiliser la concertation, il faut utiliser le consensus. Et je pense que nous allons arriver à ça.